mbokk talibé yi fi tew yépp ak jëwriñu sëñ Abdourahmane Fall Tilala yi fi tew yépp diko tek ci loxo ngañ euh, madame la présidente am nañu mbékté dalal la ñu ngi lay jox sa waccu way di la wax euh, dalal jam di am mbékté lool li nga ñëw tay euh juroom ñett fanu genn suñu sëriñ suñu xarit suñu confident di sëriñ Abdourahmane Fall Tilala Euh, yàlla na ko sunu borom ci mbaaxu Seydina Muhammad borom Touba teeru ci àjjanay Firdawsi ak moom Cheikh Ibrahima Fall euh, bettuñu li nga ñëw fii parce que nii ngay def ci réew mi yëpp ñëpp lay suivre donc fu am jàmm yaa ngi fay dem waaye fu am safaan ba aussi yaa ngi fay dem boobu nekk ko président de CSE defe naa maa lu ñuy gisee bariwut donc yàlla rek moo tax ñuy wax donc ñu ngi rafetlu sa teewaay fii euh, di la jox sa wàccuwaay ci turu euh, famille bi yëpp si turu njaboot bi yëpp ci turu taalibe sëñ Abdourahmane Fall Tilala yëpp euh, ñun jàpp nañ ñi ñoo ci gën a tuuti comme ni ko sëñ bi waxee léegi bañ koy xam ñun ci sport lañ ko xamee di jiite équipe football. di ko fekk ci këram mu ñuy ñaanal ñuy gagné coupe di indi donc 90 ak léegi mat na 30 ans ak léegi tàqali ko wuñu leneen li yëpp daf ñoo dab ay ndomb tànk yëpp daf ñoo dab waaye bu ñu koy xam ñun boobu football moo tax booba léegi bàyyiwuñ ko ñu xam nag kan mooy sëñ Abdourahmane Fall Tilala jàpp ko bañ koo bàyyi waaw ku yàlla mayoon makkaam ku yàlla mayoon euh, tawxiit ku yàlla may sutura waaye surtout nag lu sénégalais yu bari à part ñi ko gën a jege ak taalibe bi ku généreux koo xam ne ñi gën a généreux ci réew mi di euh, kilifa diine boo fi lim ah, euh, jàppal ni ci la bokk sëñ Abdourahmane Tilala lu mu am joxe ko lu mu am joxe ko ba ma ñëwee ne ko damay jàppale président de la république ci élection présidentielle yi fekk avant boobu lu toll ci at ñu si doon waxtaan ma moom ma ne ko incha allah xam naa bu jotee rek yomb euh, chaque fois daan naa fexe ba génn ci waxtaan bi rek trouver benn euh, benn prétexte rek ba ñu wax leneen ma ak moom lu dul loolu waaye bu ma jëlee décision bi ñëw fii guddi minuit mu recevoir moo xoo ko dafa dugg ci néegam génn ma moom rek ak yàlla mu jël enveloppe un million bugg ma ko jox.

donc euh, ñu ngi rafetlu say tank fii di la ko jàll en tant que président d'institution, parce que Seigneur Abdourahmane Fall Sénégal yëpp ko nous ñu ngi rafetlu délégation bi fi président Yone, parce que nous avons diggante moo président nous nañ ci tuuti xam nañ fu mu ko tolloon ak fu ko taxaw donc xam nga ku dem sëriñ bu toll ni mobiliser toute la communauté mobiliser les yëpp dem stade amitié. dem ay meetingu campagne yu président yu bare bare bare taxaw fa ak jëmmam muy sotti yonent muy jëwriñu Cheikh Ibra di taalibe Cheikh Amadou Bamba bu wér bu wér laa wax ñëpp xam ko Sénégal yëpp xam ko loolu rek jox na ndam président Macky Sall donc ñu ngi koy ndokkeel di ko rafetlu ci loolu mu def taxawaay boobu nga xam ne président am na ko waaye yéen ñi nga xam ne aussi ay jëwriñam ngeen ngeen topp ci ay tànkam dañ koy rafetlu en tout cas ñu ngi la koy jàll di ko jàll toute l' institution CSE di ñaan yàlla suñu borom xaare ko àjjana firsaw ci barke maam borom Tuubaa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sëñ Abdou Aziz ñu ngi yeesalaat suñu ànd ak yéen suñu taxawaay seen wet lu ñu bëgg rek mooy loo leen yëkkati ñu yëg ko waaw loo leen yëkkati ñu yëkkoo ñun du politique bi déedéet mbubu boobu dañ koy teg fale bu ñu ñëwee fii fii moom sëñ Abdourahmane Fall Fall la ñuy xool moom lañu lay xoolee yow moom lañuy ñuy xoolee ki gën a tuuti si njaboot bi incha allah ak taalibe yi ñoom ngañ ak ñëpp incha allah.